dama toog rek benn xaritam moom moo wax ma ko ne Ibrahima rey nañ ko mu ne ko rey mu ne ma foog nga dem gendarmerie Mbao ma dem mais ñoom jox ñoo benn information ndaxte booy dee na 24 heures ma koy doog a yëg waaw. booy bu cool la woon rek comme booy yëpp comme booy yëpp comme booy bi yëpp bëri woon kersa la ku serviable la woon tamit.

waaw loolu la gaa yi wax mais autopsie yi wanewul loolu quoi bon man dañ na ma da jël oto Eumeu mais man mosuma gis mu dawalee oto te ñeet ñëw ñu yafe ñu wax ni moom la àndal tamit man xaw ma leen te ko mosuma leen mosuma ko mu ànd ak xaw a bizarre yooyu tamit yow loo ko mënti waxal tamit pour jël euh, ay oto jàmbur yooyu man loolu xaw ma ko ci moom quoi ba pare booy jël oto xanaa di nga am ay matériel looy yooyu dajee oto wa yooyu tamit te man yooyu gis ma yëpp mu nekk ci te dama gis ni mbaaw bu dee da koy sàcc ak mbaaw nu mu guddee pour la nga yegg ba stade euh, route nationale bi xanaa bu la dàqee balaa boobu nañ la mën a jàpp quoi loolu nag jaaxal na ma trop euh, mbaaw nu mu guddee booy dugg di nga kalandoo dem ba ci biir ba dañ la dàqi xanaa balaa nga yegg route nationale bi nañ si jàpp ñaar wala ñett quoi tamit jaaxal na ma lool loolu. doom ñu xëy métti na trop man bu may wax ak yéen nii sax mais damay forcé di wax rek mais mënuma si dara c' est ko quoi c' est difficile. d'accord léegi nee nañ la xew yooyu ñu amoon ba 5 heures du matin. waaw moom xanaa daawul nekk fii ci kër gi. non moom dafa amoon nekk foofu mais néegam mi ngi fii tamit mais dafa daan ñëw chaque fois delluwaat dafa ne woon dafa am ployé côté boobu moo gën a jege moo tax mu nekk foofu. côté boobu waaw. d' accord dégg na ñu joxe. waaw tamit am na ñu déglu nga wax nga ne waaw loolu autopsie yi révélé euh, résultat yaa ngi fii ci biir soo bëggee ma woon leen ko loolu loolu la révélé ne dañ ko dóor couvre-feu volontaire hémorragie yi affaire yooyu yëpp la def quoi yaram bee tëccu ñu ko dóor yu métti devant ama seen man loolu moom si gën dérangé quel que soit ak lu mun a xew tam warul seetaan loolu il paraît que booy bi nee na ko Pikine laa dëkk ak yooyu ak lu mu bon man xaw ma nag exactement su ma waxee damay fen quoi fekkee wu ma mais vidéo bi ma gis daal devant Eumeu Sène mi ngi taxaw ñu koy ligoté. mais mais Eumeu dafa ñëwee moins dafa bëggoon tirer boy bi d'affaire. Mhm. Euh, ci loxo ñu ko doon dóor ndax da xale bi. Mhm. mu récupérer mais vidéo boobu mu wax loolu mënul nekk xanaa seetaan leen vidéo bi moom dafa taxaw. ñu ngi li côté booy moom mi ngi taxaw te il pare ñun loolu lañ ci jox am mais vidéo bi ëpp na loolu commencement vidéo bi yëpp am na ba fin bi ñun fin bi lañ yor noonu commencement bi vidéo bi ñun jotuñu ci am na ñu ko yor man nee nañ ma am na ku yor vidéo bi commencement bi mais man ñun jotuñu fin bi ko lañ yor mooy luñ ci mi ngi taxaw mi ngi taxaw ak jabaram mi ngi gis ñuy li côté booy bi booy dañ ko dóor a dóor ba mu sonn ñu jël ko yóbbu hôpital ñu dem hôpital rek indiwaat ko yàggul hôpital xaw ma premier soin lañ ko defar xaw ma ñu indiwaat ko euh, buñ ko indiwaatee si la si la gaañu mais mënoon nañ ko téye hôpital mettre ko en observation xool ba xam parce que tamit nit la ko quel que soit alpha ak lu mu mën a def tamit nit la ñu dee ko en observation ba pare après ñu doo ko doog ko jëbal genre kii gendarmerie mais dañ ko indiwaat rek dañ ko yóbbu rek indiwaat ko. ñaar da ngeen jàpp ni injustice la. Ah, bien sûr bien sûr amul sax dama koy jàppee comme no assistance à une personne en danger parce que booy boo duggee Facebook booy bi yaa ngi gis mi ngi collé photo photo Eumeu ñi naan dañ ko yónni woon version yi daal bëri na quoi ñi naan dañ ko yónni woon si combat moo Modou Lo bi ñi ne Eumeu Sène naan ay seex ñoo ko yónnee man daal affaire bi jaaxal na ma quoi jaaxal na ma lool lool lool lool lool.

et puis nee nañ tamit dama ko génne woon kër gi non génne ko kër gi non génne kër gi génne wu kër gi mosuma ko génnee kër gi loolu du ko def du ma ko mos a def euh, Eumeu Sène gisuma ko nee nañ ñëw na fi gisuma ko dégguma ko ñëw fi gars yi dañuy wax rek amu Sénégal lañ nekk non ñëwagu fi. mais d'après mooy PV gendarmerie. Hmm. Hmm. exactement lan lañ la waxoon yow ba nga demee gendarmerie. moo demee gendarmerie damaa dugg rek waa ji ne ma demal hôpital demal hôpital ma ne ko mais en tant que père c'est des droits d'information mënuma noo mënuma la wax dara parce que dañ nekk ci enquête ba jusqu'à présent amul dara lu ma wax man waxuma dara jox ma benn benn information jox ma ko benn moindre information jox ma ko parce que dafa ne dañ nekk ci enquête mënuma la wax dara mais en tant que père war naa am lu ma ci xam tuuti yaayam mi ngi dund waaw yëpp yaayam mi ngi dund ak ak waaw sœuram mi ngi fi frère am mi ngi fi yaayam mi ngi dund non yaay ji moom moo ma gën a jaaxle sax parce que xam nga yaay moom lu góor mu a muñ sax góor jigéen mu mënu ko muñ quoi góor maîtrise bu ñu am jigéen du ko am yaa am elle sul soog moom et moo booy bi ay ay gain lañ chaque fois dañ naan yeneen doom yi sax dañ naan ñoom mooy préféré am quoi ñoom dañ koy kaas sax man ñoom moom Ibou rek rek affaire yooyu chaque fois dañuy ñëw si man di ko kaas. en tant que fils waaw parce que bon daan na ma jàppale bu baax nag. même sama liggéey sax dama si daan jàppale bu baax am na yoo xam ne su ma ko kiyee moom laay woo mu ñëw defaru su ma ko gisalee man du ma ko bëgg a déranger sax parce que man bu ma déranger kenn bu ma sonal kenn waaw non bu dee ñëwoon ngeen si enterment bi <coughs> da ngeen gis bu ko yóbbu ngeen quoi loolu may wan ni booy nu meloon ful bu mag moo ko yóbbaale moo ko gungee mu dem si këram gu mujj. moom ay ñaataat la amoon. 27 ans la amoon. da ngeen lan mooy seen taxawaay yéen famille bi euh, ngeen ay avocat est-ce que da ngeen nañ plainte contre X jël ngi koy dox quoi a jàpp mooy daal Eumeu Sène moom nekku ci innocent lépp ci xew. non ne mun si nekk innocent na. te souvent bi si kër gi la nekkoon léeg nga ne oto bi si mbedd bi la nekkoon te kiy toj oto wala muy saaj oto dina yor lu gànnaay bu mu yoree ak matériel bu mu tijjee oto. man nag waxuma du amule mais au moins ñu joxe ay preuve quoi yu wóor yu wóor ni lii moom am na man wóoteewuma peut-être mun na am mais boo jël oto xanaa di nga jël di nga am caabi wala ay euh, tournevis wala raskulu wala genre affaire yooyu tijjee oto quoi pour mën a sàcc oto bi mais yooyu dama ko gisul quoi sérieusement. la famille mooy façon bi ñu marginaliser violenter ko filmer ko. justement justement même vidéo boobu sax amu seen yëngu ko woon après lañ moom xamul ne vidéo bu am na il se paraît bi dañoo menacé waa kër googu ne buñ ko génnee dégg naa benn femme moo ko. yëg waaw ñooñu ñan la. non xaw ma ne man dañ ma ko soufflé rek. parce que ñun gis nañ ci image yi ñoom ah, ñoo ko toj. man sax loolu gisuma ko. gis nañ ci benn waaw man sérieusement suma ko. am na. Euh, li doxalee non ak lu mu bu doon dëgg sax. si les enquêtes sont avérées que ni booy doon jël oto. mais war ñu ko rey. mais rey moo dul yoon. waaw nit war a rey et puis ama seen warul taxaw di seetaan loolu tamit. di cautionner loolu man loolu moo ma moo ma déranger. yow naa yaa am relation. non ama on de vue rek xamul suma tur ma ne xaw peut-être man xam nga moom am public la quoi maa koy xam mais dañ dañuy romb nuyoonte taalante loxo yooyu. chaque fois nag waaw waaw xamee na sama kanam ak yooyu quoi waaw dina ma xam quoi waaw justement c'est ça mais peut-être sama tularul jàpp wala peut-être mais xamante nañ moom xamante nañ quoi mais duñ demalante di ñëwalante quand même waaw nee na ko Pikine laa dëkk affaire yooyu waaw mais boobu ba tey taxul yaramam kii wala affaire yooyu waaw sama dernier moo daal mooy li ma bëgg mooy na justice def liggéeyam quoi su dëgg bi eete nekk ñu àtte ko quoi buy si dee sa avéré tamit boobi da doon jël ah man de wax dëgg yàlla ça m'étonnerait quoi dina ma jaaxal trop trop trop trop mais ak lu mu mën a def tamit ray moom du yoon quoi ray moom du yoon parce que ñun ñëpp jaar nañ si jeunesse quoi ñun ñëpp jaar nañ si jeunesse yàlla moo ñu suturaal rek mais def nañ fi loo xamante ni mënoon nañ fa jaaree dee ak yooyu yëpp ñun ñëpp jaar nañ si ñun ñëpp jaar nañ si loo xamante ni ay risques la ñuy jël yoo xamante ni boo toogaatee sa xalaat da nga man. ndax mel ni dama li may nekkee tey ma ko mais bon yàlla moo ñuy dimbali rek man tamit maa ngi sant yàlla xam ni yàlla lim moom rek lay jëlaat jëlul yëfu jàmbur quoi lim moom rek lay jël maa ngi ciy sant yàlla di gërëm mbokk yeeg ñëpp ñu ma jàppale depuis le début mais nag rey daal dootul nit daal warul reyal warul rey quoi yàlla rek moo jagoo rey man daal loolu laa doon wax justice na def liggéeyam ba mat sëkk man loolu laay ñaan quoi. waaw.